بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي دانو fa seene waxtaan ak yéen ci lu jëm ci jàngoro جي xew jamono ji ci di feggu ci feggu ci fan la war a mën a àgg niñ ciy fegoo daal fu mu war a mën a àgg xam nanu ne ci réew mi jiitul réew mi dafa wax ne nañ bàyyi daje yi te kilifa itam ànd nañ ci ak moom kilifay lislaam yi ànd nañ ci ak moom daje nag da ci am lool moom ci julli la aju julli juróom danañ ci daje julli ajuma danañ ci daje nu bëgg a xool nag ndax daje yi ñuy tere mën naa dem ba àgg ci julli juróom ndax mën naa dem ba àgg ci julli ajuma ngir nu mën a xam loolu mën na noo tàmbulee ci wàccuwaayu julli juróom ma julli juróom sax waaye julli juróom ci mbooloo laa bëgg a wax waaye du jëmmi julli juróom rek waaye julli juróom ci mbooloo kon dana laaj ñu waxtaane wàccuwaay bi julli juróom ci mbooloo am ak wàccuwaay bi julli ajuma am julli juróomi julli di ko julli ci mbooloo am na wàccuwaay bu kawe ci lislaam ba ñenn ci borom xam-xam yi sax àggale ko ci ne farata la waaye li gën a dëgër te ñu ëpp itam jàpp ko moo di ne àggul ci farata àggul ci farata waaye nag lu ñu war a fonk la ku amul ngànt daal sant nañ ko mu koy def waaye nag àggul ci farata waaye moo gën fopp fopp nag julli nit ku beru di julli bu jullee ci mbooloo moo koy gën fopp fopp fopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne gënee na ko julli ci mbooloo gënee na nit ku julli moom rek ñaar fukki yoon ak juróom ñaar wala ñaar fukki yoon ak juróom kon moo ko gën fopp julli àjjuma it moom farata la te ci mbooloo rekk itam lay amee kenn mënuta beru moom rek julli ajjuma ku ko defoon tam du am ajjuma kon moom jëmmi julli gi farata la defe ko ci mbooloo itam farata la julli juróom nag julli gu jëne farata la waaye def ko ci mbooloo ak àggul ci farata moo gën fopp nag buñ nee mbooloo itam bu dee julli juróom fu mbooloo mi amee baax na waaye mbooloo ma amee ca jàkka ya ak jumaa ya nag moo gënati kon ñi daje ci ci kër ñi julli ci kër jullik mbooloo baax na ñi julli ci beneen bërëb jullik mbooloo baax na moo gën bu kenn ku ne ber woon waaye nag jullee ko ci jàkka ak ci jumaa nag moo gën fopp moom itam jullee ko fudul jàkka ak jumaa bu dee ajjuma nag ci jumaa rek lañ ko mën a jullee mu baax kon moom tënk yooyu yëpp da cee daje ci mbooloo rek lañ ko mën a defe mu baax mbooloo ma itam ca jumaa rek lay mën a nekk mu baax muy julli àjjuma waaye buñ seetloo ñaari julli yooyu yëpp nag euh, la ca ginnaawam mooy dañoo seetlu ne la ta la la yàlla du neex wax sax ni ñu ne nangam a tax mu digle nangam waaye daal gis nañ ci loon jàpp ne bokk na ci li tax mu santaane di julli mbooloo ci jàkka yi ak di julli ajjuma te mi ngi dellu ci nit ñi di xamante buñ xamante xamante gi mën a jur jàppalante seen biir ci la tërale yooyu mën a sottal loolu buñ ko seetloo tëral na luy maye ñi bokk koñ di mën di daje daje yu bari bay mën di xamante buñ dee xamante duñ umpulente buñ dul dañ mën di jàppalante di mën a dimbalante muy julli juróom moo tax koñ bu ne war a am jàkka bu fa waa koñ ba di daje juróomi yoon ci bis bi euh, duñu umpulente ku ci nekk ci lu jar ñu jàppale ko danañ ko yëg ba mën ko jàppale kon xamante gi ak la ca juddoo ci dimbalante julli juróom dana ko may ñi bokk koñ ñu nekk bu fekkee julli juróom dana maye ñi bokk koñ ñuy xamante ba mën a dimbalante bu julli àjjuma ñëwee nag day yaatal xamante gi ndax du yem ci ñi bokk koñ waaye bu dee dëkk bu bu ndaw la moom waa dëkk bi yëpp lay doon ndax dëkk bi yëpp jenn jumaa rek mën na faa nekk ñëpp mën faa jullee ajuma boobaa mu yaatal xamante gi dana waral ñëpp di man di xamante te xamante xamantee rek jàppalante man caa juddoo ak dimbalante bu fekkee dëkk bu mag la it mën naa am jumaa yu bari waaye jumaa ju ne lu ëpp benn koñ nañ fee daje lu mel ne ab quartier waa quartier bépp ay bis gu ne ñu mën a daje ci jumaa ji ñoom itam di mën a xamante di mën a jàppalante di man a dimbalante waaye bu koor yi ak tabaski ñëwee yàlla tëral luy jur xamante bu gën a yaatu te moom it mooy bu dee dëkk bu yam bu dee dëkk yu ndaw yi sax moom ay dëkk yu bari mën nañoo daje bokk fu ñuy jullee buñ bokkee fu ñuy jullee dana daan may ñu mën a xamante la cay juddoo ci jàppalante ak dimbalante mën caa juddoo bu dee dëkk bu mag moom it bu bu dee bu mag rek yam ci waa dëkk bépp mën nañoo bokk fu ñuy jullee koor yi ak tabaski bu ko defee ñu mën a xamante la cay juddoo ci jàppalante itam mën caa amee bu dee dëkk bu mag a mag a mag ñu mën mën nañ faa def ay jullikaay yu yem rek yoo xam ne bu ci ne dana dajale ay quartier yu bari ma tey seen xamante man jaa juddoo ak seen dimbalante ak seen jàppalante mu koy gën a yéegal ba santaane loo xam ne àddina sépp ñoo fee mën a daje moom muy aj aj bu ñëwee moom fu nekk ci àddina si nit ñi dañ fay jóge te buñ fa dajee moom ak xamante mën a amee seen diggante xamante ga dimbalante ak jàppalante man caa juddoo te loolu lu am la luñ xam la ci bi lislaam amee ba nëgë ni aj gi jur na yu mel noonu ñu bokkut fuñ dëkk waaye daje dajaguñ fa dajet xamanté fa ba seen digënté am ay njariñ yu fa juddo yu doon seen njariñ doon njariñul julit kon buñ ko sétlo julli juroom ci jàkka julli àjjuma dafa dugg ci biir loolu ci biir tëral ni yàlla tëral ngir jullit ñi di man di xamante bay man di jàppalante di man di dimbalante kon ngir sakku nja sàkku njariñul julit ñi la xamantek gi seen njariñ la jàppalante gi seen njariñ la bu dee jëmmi julli ci bopam nag julli gudul dul ajjuma du fu nit man di tollu way bu nit pana tollu tollu way bu nit mëna tollu mom duñ ko ne taggil nañ ko ko li fek mi nga ànd ak lum néew néew néew doole lum nekkadi nekkadi ci jàmm lum nekkadi nekkadi ci lu wóoradi dañ naan ko na jullee ni mane rek bu waxtu yu jotee waaye jullik àjjuma danañ ko teggil nit xam ne ngànt yooyu comme na ci moom dañ naan ko mën naa bañ a julli ci àjjuma waaye nag na julli tusbaar ndax cosaanul julli gi moy tusbar moy farata ji nga xamne mom moom nu di demé nit ki nekoy julle nam ko mané rek aljuma ji nak dajalo gi moko waral ku am gant ñu ne ko man nga bañ dem ci dajalo ga waye na nga julli tusbar ji ciosan mom itam ci nang ko mane julli di juro mitam def ko ci juma ak jakka ak mbolo mo gën fop beru rek def ko waye baru rek def ko tam du tay mu wër ta momit ku am gant, gantul dem ci jakk jaak juma ja momit dañ ko nangul mu beru def ko lol man nañ ci déggé né kon julli ci jakk ja am gant yu yu may nit ki mbañ ko def jëmi julli ci bopam mom amul gant lu may nit mu ko def mo dem ba nekkatul muskàllaf rek ndax moy àndatut ak xelam àndut ak sagoom ak yëgam booba nekkatul muskàllaf kon da koo warut waaye amut ngànt lu li tax ñu ne ko moom mën nga koo bañ a def wala sax mën ngaa bàyyi ba ba ba waxtu sàngam da koy defe ni mu ko mënee rek wuute googu jar na jar na jar na settantal diggante jëmmi julli yi juróom ak jullee ko ci mbooloo ak it diggante julli yi juróom ak julli ajjuma yee am nañu ay ngànt yu tax ñu teggil ko nit ki waaye jëmmi julli ci boppam nag jul julli juróom moom amul ngànt luy tax ñu teggil ko nit ki liñ ciy déggee kon mooy ngànt mën naa waral nit ki bañ julli ji ca jàkka ja ak jumaa ja ngànt yitam mën naa waral nit ki bañ julli ji àjjuma ngànt yooyu boroom xam-xam yàgg nañ ko yàgg nañ ko wone danañ ci boole ñàkk wóolu ñàkk wóolu ragal dañ koy tudde ragal koo xam ne bu naree julli ca jàkka ja julli juróom am na lu muy ragal ci diggante bi bu naree julli ci àjjuma am na lu muy ragal ci diggante bi dañ naan ko yow toogal jullee jullee sa kër wàllu wéradi ci boppam boole nañ ko ci nit ki bu wéradee dañ naan ko mën ngaa bañ a julli ci àjjuma bu amee ku mu wéré di ku taxawu sax te moom rek moo ko moo ko mën a taxawu dañ naan ko toogal taxawu ko te julli tusbaar bañ a julli ci àjjuma liñ ciy dégg kon mooy ñàkk julli àjjuma moom am na cosaan am na am na cosaan luy wane ne ngàntam am na lu mel nekk wéré dina goo xam ne day tasaaroo ci anam yoo xam ne fooguma ne xame xamees na ko ci geneen wéradi wéradi gii fi nekk jamono yii anam gi muy tasaarooye dafa mel ne xamewuñ ko ci geneen wéradi tey jii maa ngi dégg ci ci réew yu mag yi am na ci réew moom ñoom dañoo wax ne fi mu ne ñaari fan yu ne mu ñim dal day fulu fulu te fi mu ne nii tey jii foog naa tàgg nañ ci junneeg nangam kon mooy bu ñu toogaatoon ñaari fan dana ak ñaari junni ci tegaat ñaari fan mu àgg ñeenti junni xam nga lu mel noonu kenn xamu ko daanaka ci wéradi guy guy fuloon guy guy guy tasaaroon ci àddina si bu ko defee kon li ñuy wax fegu day doon lu jaadu fegu mooy wéradi am ñu xam ne day tasaaroo ci anam gu doy waar ñu xam anam yi muy tasaaroo itam ñi nga xam ne itam seen wàll seen xam-xam seen liggéey moo jëm ci wàllu googee ñooñe dañ leen a war a déglu ci anam ya ñuy waxee ne ci dañ ci mën a fegoo luñ ca wax nag dañ leen caa war a topp ndax ñàkk laan caa topp mën naa dugg ci nit ki di def lu koy lor te yàlla di ko tere wala wala tul bi ay diikum ila tahluka bu leen di lor seen bopp te di ko xam fegu nag ku war ta defu ko day mel ne day lor boppam day tàbbal boppam ci lu koy lor ñi nga xam ne seen xam-xam ak seen liggéey moo jëm ci wàllu googu saa bu ñu àggee ci ne feegukat ci jamono yii buñ bëggee mu am munta ñàkk ñu def nàngam dañoo war a def loola munta ñàkk ñu bàyyi nàngam dañuy bàyyi loola donte day di daje jumaa yeeg jàkkee di julli donte day julli ajuma ndax yooye bañ ko def du tey nga julli ba léegi julli nga xam mooy cosaan ñu julli juróom julli yow yow rek wala nga julli ak ña nga nekkal sa kër wala nga julli ak ña nga bokkal fu ngeen di liggéeyee wala fu ngeen nekk daal eh, bu dee ajuma nag nga julli sa kër julli tusbaar loolu moom eh, foog lu fees la xëy na nit ñi du du du du ci ñoom du ci ñoom waaye mbirum diine da mbirum xer xërug nit ki rek nit ki du aju ci xërug boppam rek du du àttewoo xërug boppam waaye tëral yi ni yàlla tëral ci dañuy tënku ci mbirum diine li yàlla tëralal nit ki te ak jàpp ndal nag moo ko lal yàlla ci alxuraan loolu la wax daf na yàlla ak yombal la leen bëggal waaye bëggalul bëggalu bëggalu leen ak jafeel ak yombal la leen yàlla bëggal waaye bëggalu leen ak jafeel loolu mi ngi ko waxee bi muy daaneel ci mbirum koor bi mu waxee ni mu nekk farata ba noppi wax nag jàppandal yi ci nekk ci kuy tukki wala ku wéradi mu mën a bañ a woor bu jàllee mu fay ci mujj gën a wax loolu ne yàlla ak yombal la la leen bëggal waaye bëggalu leen ak jafeel wax ci yeneen bërëb luy firi loolu yàlla deful defu defut xat-xat ak jafe-jafe defu ko defu defu defu defu ko ci diine ji liñ ci dégg kon mooy li yàlla santaane dana am tolluwaay yu tax mu may nit ñi woyefalal leen ko woyefal ga moom moo leen ko woyefalal boroom xam-xam yi yépp ànd nañ ci ne bu lor taxawee njariñ taxaw te munta ñàkk lenn am ci benn ñu def li ñuy séentoo njariñ lor ji dal suñ kaw wala ñu moytu lor ji bàyyi lañuy ñuy séentoo njariñ waaye waaye mënuñoo moytu lor ji ba noppi defaale li ñuy séentoo njariñ mënuñoo ànd bu demee noonu dañ naan nañ bàyyi lañuy ñuy séentoo njariñ ngir moytu lor ji mooy dañ naan moytu lor moom la ñu war a jiital ci xëcc njariñ julli juróom nag njariñ lu ñuy xëcc julli juróom ci mbooloo njariñ lu ñuy xëcc moo tax ñu di ko def julli àjjuma itam njariñ lu ñuy xëcc moo tax ñu di ko def bu fekkee dafa fenkoo nag ak moytu lor moytu lor lañuy jiital loolu boroom xam-xam yi ànd nañ ci tëral ko moytu lor nag mooy moytu wéradi gu mel ni bokk na ci wéradi gu mel ni ña nga xam ne mooy seen liggéey di seen xam-xam buñ àggee bane ngir moytu ko kat munta ñàkk ñu bàyyi di julli ci jàkka ak mun yi ñàkk ñu bàyyi di dajaloo di julli àjjuma buñ àggee foofu ñoom ñu wax ko boobaa buñ leen ca toppee ci lañ moytoo lor buñ leen ca topput dañoo moytuwut lor dañoo tàbbal sunu bopp ci lu nuy lu nuy lor te yàlla tere woon ko kon euh, moytu lor daal lépp lu mu laaj da dañ ko war a def ngir moytu lor bu fekkee munta ñàkk bu ñàkk ci munta ñàkk munta ñàkk gi nag ñi koy xam mooy ñi ci am xam-xam di ci liggéey ñooy dem ba foo xam ne dañ naan munta ñàkk àddina sépp ni ñuy fegoo wére di gii dañ ko def ay tolluwaay yu wuute day toll fenn ñu ne nañuy def lii bu demee ba ñu ne ah léegi nag nañ ci boole lii itam bu ko weesoo ñu léegi nañ ci boole lii ñoom buñ demoon ba àgg ci ne dañ ca war a nag boole bàyyi di daje ci julli ci jumaa yi ak jàkke yi boobaa dañ leen caa war a topp ndax topp leen ca mooy jiital moytu lor ci xëcc ci njariñ boo julliwut àjjuma da nga mën a julli tusbaar boo julliwut mbooloo ci jàkka ak jumaa da mën a julli mbooloo feneen boo mënta julli mbooloo fenn itam da nga mën a julli sa bopp yoo rek te sag jul dana wér dana baax yàlla dana ko dana ko nangu bu soobee yàlla loolu daal laa jàpp na xëy na waras na ko mën a tënk ci euh, julli julli juróom ci jàkka yeeg jumaa yi ak julli ajuma ndax wéra diggu mel nii moytu ko mën naa dem ba laaj ñu bañ koo defati tontu li mooy mën naa dem ba laaj ko bu fekkee ña ci seen xam-xam jëm ak seenub liggéey ñoo dem ba gis ko buñ ko waxee dañ leen caa war a topp yàlla nañu yàlla musal nag ba du nu àgg foofa muy teel fee jële wéradi gi ak jàngoro ji ba ñépp mucc ci ba yeneen yi daan moytu sax yu àggul ci julli ci mbooloo nu mën koy defaat ci ci xel mu dal yal nañu yàlla musal kon ci lépp lu aju ci lii defal nu jàmm ak wér maa ngi jéggul ñëpp nag wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.